non man Reug Reug Lac laa bëgg loolooy combat bi. Reug Reug Lac de Guiers moo nga bëgg waaw combat la bu neex la. mais Lac de nee na. mënu ma ko tëgg de mënu ma ko tëgg de. mënoo ko tëgg non xam nga. moom mënu ma ko tëgg non loolu dama koo mën a laay loolu mënu ma ko tëgg. tëgg laal kii non non ko tëgg de. laay combat Lac de Guiers Lac de Guiers Reug Reug moom wax dëgg yàlla. mais nga bëgg. rent DKR non bëgguma ko dama bëgg mu taxaw. damaa bëgg c'est booy boobu rek rek ku koy jël na ko teel a jël léegi bu dul loolu bu yàggee te jëloo ko rek day ñaaw de. mais Lac de Guiers champion la Pape Sarr. waaw waaw wuyu ma rek noonu noonu waaw da ngay mais Lac de Guiers yi nii comme est-ce que yoon na muy may booy sens parce que Lac de Guiers may na booy yëpp sens presse ku nekk ci moom ngay jaar. ah Lac de booy bu ñëw ci moom mu ngay jaar te da daal. kii la may sens Papa Sow. Papa Sow Boy Niang Boy dafa prouvé. mais may may na ko. waaw waaw waaw waaw moom ci bëri waaw kay dama ne la. la de guerre. Mm-hmm. ah Sow la war ci kawam. Mm-hmm. dégg waa léegi dama ne la dama ne la. Mm-hmm. champion la. combat mag la guerre tafaatin sax combat bu neex la. la de guerre Gris Bordeaux combat bu neex la mais dama ne mbër yi nekk ci kaw. bu ñu jëlul léegi léegi rëg rëg sama digganteeg yàlla duñ ko daan. sama diggante ak yàlla laa la wax. mais Pape Sarr Reug Reug du mbër bi nga xamante ne dafa war a bëre te kii bëree mooy daanu moom mooy daan. non dama ne la. waaw ñun ni Sénégal yëpp dañoo war a féliciter guy gi. guy gi guy waaw nañ ko féliciter bu baax parce que guerrier la ndaanaan la de jàmbaar la de nañ ko féliciter dama ne la Reug Reug boo ko jëlul si ñaari at yi bàyyi ba mu am ñetti at nga ne koy jël billaay wal kitaabi arène national bii day suul ndaanaan. dina la fi dina la fi dina la fi weer. barke arène nationale bi day suul ndaanaan de. alors mi ngi noonu comme ni ko Pape waxee nee na euh, arène nationale bi day suul ndaanaan aussi bu ñu fa bu ñu fa jógee dañuy dem fi nga xamante ni mooy actualité mun naa ni euh, depuis semaine deux semaines yi yëpp euh, Pape Sarr ñu gis ne Ama balle ak Modou Lo bi bari woon na coow gars yi naan dina am gars naan du am Euh, même pas de semaines ñu ne combat boobu mënatul am parce que Modou Lo dafa blessé yow nga xam ne ni ku la xam xamee la Ama Baldé xamee la Pikine di ngeen yëgee loolu nag euh, nan la leen def. non man moom wax dëgg yàlla bi mu ko yëgee man bettu ma. ay coow nag ku si nekk a ngi lu ñuy wax amul ñii lu ñuy wax ku si nekk yor sa da ngay xool loola nga wax ko. mais pourquoi nga amoon. non dama ne la nekk laa la wax ñaari camp yi ku si nekk dangay xool lu la arrangé nga wax ko. waa kaamu Modou ñu ngi xool lu leen arrangé ak luy protéger seen mbër ñu koy wax waa Pikine dañuy xool lu leen luy propé luy protéger seen mbër tam ñoom tamit ñu koy wax munoo xam fan la dëgg bi nekk ñoom bu ñu waxee duñ ñu jox dëgg ñoom bu ñu waxee duñ leen jox dëgg. kon moo waral kon bari na coow. voilà xam nga problème bi mooy ku si nekk mu ngi génn di wax ah man bi nit ñi di génn di wax man dama ne dafa blessé. Modou Lo dafa blessé. waaw yooyu confirmé man dama ko waaye dama ko yàgg confirmé. dafa blessé mais dama ne la ñoom dañ ne France la blessé ñun waa Pikine ñu bañ ko man bokk naa si ñu ko bañ mais man nangu naa ne tey maa ngi wax waa Pikine Pikinois yi Modou Lo dafa blessé mais blessé bi dafa yàgg. yàgg. waaw nan la yàggee. mais bëri na ak la daggeer faar bu damm. non faar ak épaule Pape Sarr. bu damm. faar moo yow damm faar bu damm. faar bu damm mais mais enjeu yi dafa bokkul Pape Sarr taxaw déglu non dama déglu ma wax la. waaw non déglu déglu ma. xamaa man problème mooy man lijjantiwu ma kuy wax man sama wax dafay sol tubéy dama ne la mindeef du tax may xas Modou Lo mindeef buy dox ci kaw suuf dëkk Pikine du ma xasloo Modou Lo du dëgg Modou mindeef du tax ma koy xas mindeef du ma xasloo Ama Baldé parce que sama wax chaque jour dam dam koy répété waat yéen ñëpp ñëw ngeen ci feebaru jibi Ama bi muy Baye muy waa parcelle muy am na ay supporteurs parcelle Modou Lo yoo xamante ne tey ñu ngi ci bitim réew dañoo dajale seen i ñàkk non teg ko sama loxo xam nga def ko def ko kii euh, nu mu tudd sax euh, Western Union ma encaissé xaalis bi dem jébbal ko booy bi jibi ama loolu moo tax sama ngor mayuma ba pare ma jël site internet jóge foofu ñëw ba parcelle te ñoom zookaana ak Batika def fa émission parcelle yëpp di ko rafetlu mais damay wax sama cadre waa Pikine du kenn kuy dox ci kaw suuf ku may xasloo móodloo